miroir Covid 19 ci télévision Futur Média mbokk yi xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ci sunu magazine ñu jagleel ko mbas mi di coronavirus lépp aju ci opération daan corona niñ koy defee bés bu jot noonu la ñuy tàmbaliwaatee tey jii mu yemook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ministère de la santé et de laction sociale def juróom-ñetti téeméer ak fukk ak benn test. ci lim boobu juróom fukk ak benn dañoo ñëw am doomu jàngoro ji mu di ñeent fukk ak juróom-ñaar yoo xamante ne ay cas contact la yu service su ministère bi doon topp waaye am na nag ñeenti cas communautaire ñu wàññi ko ci Touba ci yoof ci Dakar Plateau ak ci yëmbal wante am na ñaar fukk ak ñeenti patients yoo xamante ne dañ leen testé ñu négatif ba dellu nañ seen kër génn nañu hôpital maanaam mën nañu jàpp ne ñooñee wér nañu kon bu ñu xoolee suñu tableau de bord ñaari fan ci weeru mars la fi mbas mi duggoon boobaak léegi Sénégal wàññi na ñaari junni ñeenti téeméer ak juróom ñetti fukki cas ci coronavirus ci limboobu boobu juróom ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett patients wér nañu am na ñaar fukk ak juróom yoo xamante ne dañoo ñàkk seen bakkan bésu tey ji junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn patient ñoom ñoo nekk ñuy saytu seen yaram ci lim boobu ñu wàññi ci juróom-ñeent yoo xam ne ay cas grave lañu kon xibaar yi fi ñuy tàmbalee tey ji moom mooy région bu Louga région bu Louga ñeenti cas coronavirus la ñu fa nemmeeku wante ñetti ñu ngi fii ci hopital dalal jàmm ñuy saytu seen yaram ca Louga benn patient kese moom moo fa des mu di kañu nemmeeku woon démb ca Linguère kooke la ñu téye ca Louga di saytu yaramam wante bésu tey ji nag kuréel bi ñu duppee téeméeri junni ay étudiants ñu ngi ci mbedd Louga yi di sensibiliser naka noonu jox tamit population bi ay masque ngir ñu moytandiku ci feebar bi di Covid 19. ñu dem ba diwaanu Njàmbur Njaay Cerno Fall borom Njàmbur moom moo ñu fa toogal Cerno ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Ibou Kane ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñu dellu si nag fii ci Louga wax ci lu aju ci jàngoro ji di coronavirus nga xamee ni nag Louga am na benn kaa bu bees ñu testé ko positif fële ci département bu Linguère muy nag ab cas communautaire. loolu nag day yóbbu lim bi ci fanweer ak ñett yu nga xamee ni rek boobaak léegi région bi am na ko ak. ñeent ñu nga xamee ni ñu ngi leen di traité ak kenn ku nga xame ni rek faatu na ci Ibu ñu wax ci leneen lu aju ci wàllu sensibilisation bi nag mouvement cent mille étudiants lëkkale nag ay donga daara yu nga xamee ni ñoo nekk ci université yi ci Sénégal ñëwoon fii ci diwaanu Louga ngir bay seen wàll ci xeex bii di coronavirus ñu déglu ci ki nga xamee ni mooy seen njiit. cent mille étudiants contre Covid 19 tey Sénégal gépp ci région yëpp. wàllu tey ñu ñëw fii tey ci Louga ci district sanitaire bi pour amal fi réception matériel produit yi nga xamante ne si andi nañ ko fi mu doon euh, ay gel hydroalcoolique ay masque bon yoo xamante ne si ne dañ ko bëgg a dañ ko jaarale ci district bi bëgg ko jox ci wàllum waa population bi pour ànd ko ci xeex bi nga xamante ne si ne ñi ngi koy def ci Sénégal gépp muy xeex coronavirus bi nga xam ne moo fi lëmbee jamono jamono li ñuy tàggatoo moo di morse bi nga xamee ni si ay artistes Louga ñoom ñoo ko woy rek ngir dugal seen loxo ci xeexum jàngoro yi coronavirus. L'heure est grave président ko wax ministère de la santé joxe ndigal gouverneur de la région de Louga takku taxaw ànd ak askan wi ngir xeex ak corona. jërëjëf Thierno Fall région bu Njàmbur la ñuy desandi wante dañuy xuus ba département bu Linguère département bu Linguère ni ki démb la enregistré kaam bu njëkk ci coronavirus loole nag tax na ba tey jii tailleur yi nga xamante ne ñoo fa nekk rawatina jaaykatu tissu yi ñoom jamono ji nga xam ne korité ñu ngi ko dëgmal mu ngi jub si amul benn client boo xamante ne ñu ngi koy gis loolu nag tax na ba ñuy woote ndimbal ci autorité yi ngir ñu jàppale leen bu baax a baax ci korité gii jib si te amuñ benn client bu ñu gis foofee ñu dem ba Linguère Mamadou Moustapha Ndiaye moom moo ñu fa toogal. jërëjëf miroir Covid 19 fii ci Jolof tey nag ñu leen di fàttali rek na doomu jàngoro bi dugg na ci département bu Linguère waaye teewul dem nañ seeti ñi nga xam ne ñoo di tailleur yi. ñoom nag jamono ji daana fekk ñu daan am ay commandes yu baree bare waaye depuis état d'urgence ñu décrété ko léegi ñoom dañoo am ay jafe-jafe li ñuy ñaan nag ñoom mooy autorités yi jàppale leen ci wàllu ndimbal financé leen wala mu jox leen ab dund ndax jamono yi sonn nañ lool. métti rek métti lool dëgg yàlla boppu métti yam ay presque tailleur ay événement ñooy doxal ay mbiram te ñun depuis mbas mi ba mu commencé ba léegi benn événement amul événement yëpp dañ ko arrêté. ba ci korite gi ñu dugg nii sax presque une semaine moom moo des ci korite te ñu ngi nii liggéey bi demeewul noonu autorité yi appel bi leen lancé mooy ñu jàppale ñu bu baax a baax a baax. fu kuy tëyër ci dëkk bi yëngu ko waaw sonn nan crise bi métti na gisoo loo ñaw toog na jaaxle nan xale yi muñ ñoo fay seeni place ay dépenses sax mu ñu ko am man comme président association tëyër laa jàmbat bu nekk ñëw na sama kow waaw. jàmbat bu nekk waxu dëgg yàlla ñëw na sama kaw mais lu si man lu nekk doon nañ ko si def. deux cent et waaw mais mbir mi métti na état si boppam moom moo ñu war a jàppale. dundi bi ñu doon wax fii si dëkk bi gisuñu presque dara xale yaa ngi fii am na ñoo xam ne ñëpp ay borom kër lañ gisuñu dund gisuñu leen jàppale gisuñu leen dara waaw nga toog ñu ne la à partir nga xëy ubbi sa atelier gisu loolu ñaw deux nga tëj courant bi ñu doon wax naan dañ koy fayal tailleur yi la même chose lépp daal man presque man mi toog ni nekk président association am na loo xam ne gisuñu dara dara dara gisuñu ko. mbas mi xanaa yendoo nelaw xëyee nelaw yendoo nelaw ba wàcc coole nga wàcc jënd am nañ bagage waaye gisuñ ku ne kaay kaay jënd. heure bii bitiki dina xat macha allah waaye ren gis nga ko yaa ngi ma fekk ma tëdd di waxtaan. miroir Covid 19 fi ci département bu Linguère lii la leen indiloon ñi leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf. ginnaaw Jolof ñu dem ba beneen région région bu Saint-Louis ca Ndar Géej marché ya rawatina quai de ya daanaka lépp dañ ne ko ràpp ngir nag mën a désinfecté bu baax a baax respecté itam mesures yooyu nga xamante ne autorités yi ñoom ñoo ko jël wante tailleur yi commerçant yi ñoom ñu ngi rafetlu lu ni mel bu baax a baax. rawatina jamono ji nga xamante ne korité mu ngi jub si te nee nañ nag dinañ ko respecté ñoom bu baax a baax a baax dinañu dëppoo ak mesure bi miroir covid 19 ca Ndar Géej Ousseynou Diop lañ ci àndal ñuwaat Covid 19 li ñu koy jagleel tey jëlee bokk na ci euh, li nga xamante mooy ndogal yi kilifa jël ngir lu jëm ci wàllu quai yi ñu tëj ko waaye tamit marché yi jamono ji xam ngeen tailleur yi dañu nekk ci jamono yi waajal lu jëm ci wàllu korité ñoom nag nee nañu mesure bi respecté nañ ko waaye nag li ñu gën a gis mooy ñoom jamono ji daan nañu sonn lool daan nañu xam ne itam ni lu jëm ci wàllu ndogal yi kilifa yi jël ñëpp dañ ko war a respecté dool doo leen rombe kenn ubbiwul kon moo ne leen gars yi respecté noonu kenn kenn ko bi ndax doo ko xoolee marché dana am entente suñu biir léegi di kenn waxee comme président wax rek ñëpp dañoo tënku si affaire boobu. mu ni yokk nañu commerçant yi nañu liggéey six jours yi noppal benn fan bi ñu raxas marché yi pomp leen yaakaar naa suñu wér gu yaram rek la ñu bëggal mais ñu ne dañ si ànd en tant que responsable. actuellement heure bii dimanche bii ñu taxaw di wax daan na fekk teer yëpp di veillé marché bi xumb dugg a génn bi tey boo gisee lii am yaa ngi gis machine yi ku ne mi ngi jël ay machine am. pour yóbbu ko këram am yu mu fa mën a wàññi. di présent mag Sall na jàppale secteur bi nga xam ni mooy marché yi nga xam ni ay nit ña nga fa di daan seen doole te yaakaaruñu woon lu dul événement. kon mu ngi noonu tailleur yi nekk ci diwaan Ndar Géej ci marché yi tam ñiy jaay ñëpp daal ñu koy respecté ci marché Ndar Tuut ak marché bii di marché Tendjiguène euh, amul benn nit boo xamante ni yaa ngi fay taxawaalu ñëpp tëj nañ seen ay boutiques ci diwaanu Ndar Ousseynou Diop Habib Seck. jërëjëf Ousseynou Diop ci diwaanu Saint-Louis dañuy dellu si ba région bu Ndakaaru dem ca banlieue ca géejowaay ca géejowaay pandémie covid 19 maanaam mbas mi gàllankoor na bu baax a baax liggéey ci yenn artistes yi ndaxte ñu ci bëri amoon nañ ay programme ay rendez-vous wante dañuy mujj toog du am lenn loo xamante ne dinañ ko ci honoré bu weesoo artistes yooyu bëri na yeneen ndaw itam ca géejowaay yoo xamante ne ñu ngi gàllankooru ci mbas mi di Covid 19. ñu doxantu kon ba banlieue bu Dakar ca Géejawaay Salif Sow moom moo fa toog. di la fay bu baax dal leen ak jaamu ci diwaanu Géejawaay tey dañoo dem seeti sunu mbokk artistes yi Covid 19 impact bi ci ñoom lan la leen def ñu ngi ak ñi nga xamante ni leen gën a xam mooy image yi ngeen seen sama ginnaaw muy Linguère ñu ngi ak kenn si ñoom Chérif mooy keneen ki borom njañ yi Job sa brain impact bi bu ñu ko doon wàññi. est mun que mën nga ñu ko takkal xayma <laughs> non loolu moom ñun instant mënuñu ko saa wax loo ngay xalaatee sa bopp di métti quoi parce que ñi nga xamoon ni comme Chérifou Diop sa brain dañoo nekkoon ci biir mouvement bi di bouger carrément parce que boo xoolee avril bi on avait trop de dates su international bi waroon nañoo joué ji Paris deux fois waroon nañoo dem Côte d'Ivoire ci concert asal asalfo bi xam nga waroon nañoo defaat suñu tournée national bi waroon nañoo yeggale yenn dates yi bul xam ñaata la ñu perte ci côté xaalis. ok ay musiciens lañu ay ndaw lañu am nañu impact Covid 19 laal na leen bu baax waaye du ñoom kase ci diwaanu Géejawaay ñi tamit ci ñu feebar bi sonal dëgg ci lañ bokk. ñu yàqal moom wax dëgg yàlla bu ñu ko doon tudd tey boo xëy na métti na trop comme ni ma ko waxee sànq rek ay soutien de famille lañ yor nañ ay place lu loué ko ñu ngi nii mënuñu ko fay ñu ngi nii loué ay kër yor suñu njaboot ñoom amatuñu leen loo xamante ne dañ leen ci mën am nañ lu leen mën a dimbalee. kon moom rek nañ mën a tàllal loxo président la république ak ñi ma fi tudd léegi léegi ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu autorité locale yi fi nekk. ndaw ñi mu mel ne coronavirus Covid 19 euh, sonal na leen bu baax ci seen i activités yëpp yi nga xamante ni ñu ngi ci doon yëngu économiquement kon géejawaay fi ñu toll nii mën nañ ne bu doon mbër la trois appui na. jërëjëf Salif saw ñu génn banlieue bu dakaar demaat ba région bu maatam région bu maatam moom niñ ko xamle. ba léegi jàngoro ji dugagu fa ñuy laal bant di ñaan suñu borom jàngoro ji bañ faa yegg wante nag xeex bi ñuy jëmale ci coronavirus ñu ngi koy gën a dooleel foofee ci diwaanu maatam rawatina mairie bi nga xam ne jamono ji mu ngi distribuer nag ay matériel de protection maanaam ay gel hydroalcoolique ak yu demee noonu ngir askan bi mën a ñàkk seen bopp bu baax a baax ci mbas mi di coronavirus. ñu dem kon ba région bu maatam Ali Bandel moom moo fa toog. ma leen di dalal jàmm fii ci région bu Matam di diwaan bi nga xam ni ba léegi ñu ngi sant yàlla ndax benn cas coronavirus amagu fi bi mbas mi duggee ci biir mi léegi waaye nag terewul wàllum sensibilisation bi gaa yaa ngi wéy di investir seen bopp seen xam-xam ak seen jumtuwaay ci capitale régionale bi nag daanaka jaraafu dëkk bi di maire bi fegoog médecin chef district sanitaire bi gannaaw bi nga xamante ni wàllu masque doon na loo xam ni xaw na jafe tax na ba ñu sumbab opération dugg ci biir dëkk bi joxe ay masque ñi nga xamante ni ñoo ko gën a yeyoo ñu tawlu ci li nga xam ni moom la médecin chef district sanitaire bu Matam yëkkati ci kàddu. tamit di wax ne tamit lii dana tax population yi mën a protéger que ça soit au niveau des marchés. au niveau des écoles parce que dégg nga récemment ñoo ngi préparé l'ouverture des des classes je pense que là également la mairie dina fa dugal loxoom bu baax a baax pour accompagner maintenant l'éducation accompagner également les marchés où vraiment y a un regroupement dafay am maanaam ndaje yu bëree bëri ko donc lii lu baax la léegi nag je pense que suñ ko continuer nii incha allah yàlla mën nañu dimbale ba ñu am zéro cas ñu kon ne di am zéro cas au niveau donc du du département voire même au niveau de la région. ki nga xamante ni nag mooy maire dëkkub Matam ab anesthésiste la woon doon liggéeyee ci réewum France li nga xam ni àdduna jëmale ko ci ñiy feebar di amee coronavirus moo di sénégalais bu ne da nga war a def wàllum prévention bi mu mel ni moom mooy sa motukaay ndaxte moom xam na ne bëral na ni du benn diwaan ci biir réew mi moo amee service réanimation bu mën a dëkku feebar bi fu toll fenn file Mori Diaw. lu mu tiit c'est que région Sénégal yëpp mun naa leen wax amuñu condition de gérer cas critiques ce sont des gens dañu leen yobbu dans des services de réanimation dañu leen di intuber ventiler donc ay machines ñoo leen yor yooyu nag région yu Sénégal yi peut-être Dakar même respirateur yi ma gis fii ci télévision yi ay respirateur salle de réveil la ce ne vraiment pas ay respirateurs de réanimation donc on n'aurait pas souhaité vraiment ñu arriver loolu au Sénégal surtout qu'on n'a pas les moyens de gérer ça lu ñu leen wax il faut ñëpp respecter conseil yi mu leen jox ça c'est important ba léegi nag léegi à partir de maintenant la ñu leen war la leen vraiment tout le monde il faut que ñëpp adhérer ñëpp ñu ñu ñu solidarité pour que ñu bañ am loolu problème ci tënk tey jii mu nekkoon li ñu dajale woon mu ñeel xibaar ci biir miroir Covid 19 ma leen di jox dig daje ëllëg ak yeneen xibaar. Ali Bandel ñaa ca région bu Matam a jaaraama mu mel ne nag mbokk yi xarit yi loolu lañ leen indiloon ci xibaar mu soxal biir réew mi dañuy dem ba biti réew xuus ci xibaar yu coronavirus wante loole après bakk bi lay doon ñu dellu si waat ci Mauritanie lañ koy tàmbalee Mauritanie niñ leen ko waxee woon bés ñu génn mesures yi xawoon nañ ko woyofal tuuti wante mbas ma tàmbali naa dugaat ba tax na nag ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax ni ki démb ak tayit am na ay cas yoo xamante ne réew ma jot na ko am ka ñu fa toogal di Mohamed Diop seq na waxtaan ak député de la diaspora Afrique du Nord maanaam Mor Kane Ndiaye bokk na si li mu yëkki mu ne nag ndimbal li war a dem ca diaspora bi ñu fexe ba képp ku ko yeyool na ko jot naka noonu itam sénégalais yi nekk ci frontières yi moo xam Mauritanie la moo xam Maroc la nee na nguur gi na def kéem kattanam ba ñu rapatrier leen dugal leen sax bu ko jaree ci ay bus ñu dellu si ci sunu réew ñu dem ba Mauritanie Mohamed Diop moom moo fa toog. Ibrahima Malay Faye tey jii nag xam nga ne gànnaar lii di coronavirus bi nag daa jolli ak doole ndax ñu ngi toll ci juróom-benn fukki cas ak ñaar ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan juróom-benn rek ñoo ci wér li nga xam ne nag moo sunu mbokki doomi Sénégal yi tey ñuy waxtaan ak ki nga xam ne nag mooy Mor Kane Ndiaye di député diaspora bu Afrique du Nord muy wax ak ñun nag ci Sénégal yi ak virus bi nga xam ne nag moom la ñuy jànkoonteel. Mor euh, maa ngi lay euh, nuyu. waaw may nuyu euh, mboolem sénégalais boo xam ne yaa ngi nekk Afrique du Nord nekk Mauritanie rote aussi aussi autorité consulaire yi parce que actuellement nii liggéey bi metti na. ñu dugg rek ci question bu njëkk bi est-ce que tey mën nañ xam Afrique du Nord ñaata sénégalais ñoo ci ñoo ci bindu wala ñaata sénégalais ñoo fi bindu rek ngir ñaan ndimbal. Algérie y'a quatre-vingt-un ñoo xam ne bindu nañ ci Égypte am na trois cent trente-cinq yu ci bindu. Maroc ñu ngi ci douze mille euh, cent euh, euh, ñu ngi ci cinq cent quatre chiffres yooyu nag day yokk chaque waaw boo xoolee am na ñoo xam ne ñu ngi bindu di ñaan ndimbal waaye am na ñoo xam ne tey ñu ngi takk ci frontières yi boobu ba léegi yàgg na liggéeyatuñu mëntuñoo dem ñooñu est-ce que am ngeen lu ngeen xelaat bu ngeen def ngir jàppale leen wala ñu am na ñu ci bari dañoo bëgg a ñibbi daal. son excellence décidé na rapatrier sénégalais yi nga xam ne ñoo bloqué woon en ak yeneen réew yi euh, donc ñun am nañ euh, njort lu rafet que ni euh, dinañ ci boole ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci frontière yi rawatina diggante Maroc ak Mauritanie ak diggante Mauritanie ak Sénégal. ñi nga xam ne bloqué wu nañu frontière Maroc ak ak Mauritanie ñooñu wuñu ay oto la yor déjà mais ñi nga xam ne nii ñoo nekk Mauritanie aussi diggante Mauritanie ak Sénégal am na ci ñoo am ne ñu oto ñooñu suñu waroon jël par exemple ay bus dem jël leen. Euh, Sénégal itam coow laa fa woon ngir euh, ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan euh, ci bitim réew nan lañ leen di delloo Sénégal tey ji yéen fu ngeen toll fii te loolu dama bëgg mu ñeel Mauritanie surtout. ñun dañoo yi nga xam ne nii ñu benn expérience bi nga xam ni les pompes funèbres yi nekk Europe ak Amérique am nañ ko ba mën aar néew bi ba du wàllaate ñun nag. problème boobu la ñuy am xam naa ni donc yaakaar ni aussi autorité yi autorité sanitaire yi ak vraiment euh, ñu xalaatal yan condition bu fekkante ne dal nañu heure bu amee néew yooyu ñu ma leen a indi Sénégal euh, ak si seen i mbokk kon Ibrahima ma lay delloo kàddu gi di sant rek Mor Kane Ndiaye député diaspora Afrique du Nord bi nga xam ne nag moom lañ dalaloon tey jërëjëf Mohamed Diop ñu génn Afrique dem ba Italie Italie ni ngeen ko xamee xeex bi ñu ngi koy wéyal jëmale ko ci mbas mi di coronavirus wante nag daa am xibaar bu am solo boo xamante ne Vatican moom moo ko xamle mu di lan mu ne altine bi dinañu tijjiwaat lii di basilique Saint-Pierre basilique Saint-Pierre di jàngu bi gën a mag ci àdduna wërngel képp nekk foofe ca diwaanu Rome ñu dem ba réewu Italie Augustin Faye moom moo fa toog Augustin ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Ibrahima Kane fii ci réewuma Italie suba ci altine gi jàngu ju mag ji nag nekk ca Vatican di basilique Saint-Pierre dana ubbiwaat ay buntam mu waral ko nag matukaay yu mu jël ci wàllu désinfection dëppoo nag ak li réewum Italie tëral ci wàllu wér-gi-yaram. naka noonu gouvernement réewum Italie àdduna démb ci gaaw gi ne euh, li ko dalee nag euh, ci ñetti fan ci weeru juin dana ubbiwaat frontière am touriste yi di jóge nag ci Union européenne waaye it euh, dana dakkal nag li ñu duppee quarantaine obligatoire ci képp ki di dugg nag ci biir réew mi ci lu jëm euh, ci mbas mi ba tey euh, ci réewum Italie euh, ci waxtu yu mujj yi nag téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakken mu néew lool nag buñ ko nattee rek ci li jot a xew nag ci weer yi ñu génn. mu mel nii rek nag ne mbas maa ngi wàññeeku nag bu baax fi nag ci réewum Italie bu fekkee ne sax moo nekk ci juróomeelu place ci dëkk yi mbas mi nag gën a fàtt ci àddina jërëjëf Augustin Faye ca Italie mbokk yak xarit yi mu mel ne nag yëgsi nañ ci cappaandawu magazine bi wante laataa ñuy tàggoog yéen dañuy xoolaat rek suñu tableau de bord niñ leen ko waxee woon kon euh, ñaari fan ci weeru mars la mbas mi di coronavirus dugg ci Sénégal boobaak léegi nag wàññeegum nañ ñaari junni ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukki ka ci lim boobu juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett wér nañu am na ñaar fukk ak juróom yoo xamante ne dañoo mujj ñàkk seen bakkan bésu tey jii junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn patient ñoom ñoo nekk ci lalu hôpital yi wala ci yeneen centre ñuy saytu seen yaram ci lim yooyu nag am na si juróom-ñeent yoo xamante ne ñoom la ñuy wax ay cas grave maanaam dañuy nekk sax ci service réanimation ñuy ñaan suñ borom yëkkati leen yëkkati itam képp koo xamante ne da nga am ci wopp bi di coronavirus mbokk yeeg xarit yi seen miroir Covid 19 la woon ci télévision Futur Média lépp bokk ci opération dan corona dig daje ëllëg ak beneen numéro ak soxna Faty Dia